waaw wax tey dañoo woote mobilisation sous région bi yëpp ñoo fiy tase comme ñun ñëpp a nekkoon ci procès bi je pense que ñu bëgg xam xamoon nañ xam nañ ko on ensemble xam nañ ne c'est la bonne xam nañ li waral euh, lii yëpp léegi nag au lieu ñu nekk fi di jóorante di saagante di xeex ñu ñëw mobilisé wu toog waxtaan en famille parce que sous-région bi yëpp la ñu toog waxtaan dëgg ñun ñëpp ñu déggoo déggante waxtaan pour xam ba constance yi dañuy jëm pour le 30 mars parce que verdict ci lay ñëw aw wanawaat suñu soutien wanawaat suñu ambition ci xalifa wanawaat ne ñun ñëpp ñu ci ginnaaw xalifa tey suba gannaaw suba on est derrière lui on attend daal le verdict bi daal la ñuy a nekkoon ci procès bi je pense que ak li ñu fi wax yëpp ak li ñu fi gis yëpp le président en âme et en conscience dina joxe loo xam ne dina leer ci nopp sénégalais yi ak am na yeneen ak yeneen bagage yoo xam ne nag balaa le 30 ñu ngi ci te inter am nañ ci yaakaar bu baax parce que dëgg mooy njëkk te mooy mujj. dafa nekk benn fàttali bu triste parce que soo fàttali ko bis ni tey le 7 mars 2017 moo nekk. xamante ne ñun en tant que responsable département Dakar notre secrétaire général département Kane Ababacar Sarr dañu convoqué woon te jour bi dañ ko tegoon loxo mu def pour dem bu njëkk kaso kon tey loolu la nekk di nekk fàttali mu naqari ci un an détention arbitraire bu Khalifa Ababacar Sall le maire de la ville de Dakar l'honorable député tey ba moon la ñuy fekk un an d'emprisonnement suñu soutien dañ koy gën a montré ak suñu détermination ak suñu engagement pour mu xam ne ñun toujours nous sommes derrière lui et nous serons toujours derrière lui jusqu'au palais. waaw procès bi de pour déglu procès bi 22 jours de procès yam ñu def ko tribunal boo ko dégloo di xamante ne bu ñu waxee trois kasi le 30 incha allah ñun ak Khalifa Ababacar Sall ñooy ànd ak mooy interpréter le président Lamone parce que le monde l'écoute le Sénégal lépp te adduna bi lépp comme je l'ai ñu ngi koy dégg kon moom dafa war a xalaat ëllëgam mu mu bañ nekk satis ay satisfaction politique mu lire le droit mu wax le droit parce que boo fàttali ko keroog ci euh, pré procès bi maître Ali Kane waxoon na que ne y a te trois juges yooyu kan moo ci nekk celui qui lit le droit et qui dit droit ce qui, celui qui lit le droit et qui ne lit pas le droit et celui qui kon ñu ngi koy ñaan yàlla mu bokk ci ñi nga xamante ne ils lisent le droit et disent le droit. dañu ñëw rek pour euh, wane d'abord suñu naqar parce que gis nañ ne tey la am at ñu jenc Khalifa Sall ci kaso bi jenc boo xam ne tegul ci yoon tegul ci dëgg dara luy dëgg lalu ko. denc boo xam ne dañ ko tëj parce que Macky Sall dafa ragal Khalifa denc boo xam ne dañ ko tëj parce que Macky Sall dafa yaakaar ne bu ko tëjee si kaso bi day tax Khalifa Sall ni meloon si nit ñi si popularité ak setam day dañ denc boo xam ne Macky da ko créé uniquement pour toxal Khalifa ñu ñëw di ko naqaru tey du bésu mbégte bésu naqar la wàññi ne suñu kilifa ñu ngi ko tëj si kaso bi depuis un an donc ñu koy naqarlu daje fii ñu ñëpp nag pour wax Macky saal ne ko na bàyyi Khalifa Sall mu génn parce que Khalifa ñëpp xam nañ ne Euh, place am du kaso donc maire de Dakar place am du kaso mais sant yàlla tamit bu baax ndax yàlla may na ko mi ngi si kaso bi waaye mi ngi ak wér mi ngi ak jàmm mi ngi ak salaam sant yàlla si loolu. Ah, am nañ yaakaar parce que procès bi li tax ñu am si yaakaar mooy li li taxoon ñu Macky def ko. leer na mooy dafa bëggoon taqal wanee na Khalifa Sall yére weex yi muy sol melul noonu dafa taq dafa tilim dafa salte mais procès bi wane na Khalifa Sall ku set la. Khalifa Sall taqul Khalifa Sall tilimul ba pare Khalifa lekkul xaalisu askan bi li muy li nga ko jox lépp da ko joxaat askan bi donc am nañ yaakaar ku dem tribunal gis nga ne droit bi su fekkee loolu la wax ma Khalifa day génn gis nañ ne procureur lu bari lu mu doon wax teg ko fen tegul si dëgg ba tax na ne moom yu bari avoué na ko nee na am na juge yoo xam ne ñu ngi si ñu ngi si biir salle bi gis nañ dossier bi dem na di enregistré plaidoirie yi donc loolu lay wane la ñun suñu suñu suñu suñu suñu suñu justice bi am nu muy doxee mais nañ yaakaar ci président bi ndax moom nee na droit lay wax il a carrément dit que le droit sera dit donc si le droit est dit je pense que Khalifa dina. Euh, euh, loolu mooy dellu nañ ginnaaw ci yàgg yàgg yàgg. m'anime que voilà, Khalifa a été, euh, le maire a été emprisonné injustement, euh, d'une manière arbitraire. Et ça fait un an aujourd'hui qu'il est, qu d'une manière arbitraire. Et aujourd'hui, nous sommes là mobilisés dire non à l'injustice, pour dire non à l'agenouement de notre démocratie. Euh, jullit du ñàkk yaakaar jullit bu wax na ni aw ma espoir dans cette là, il y, a, il y a, toujours des gens qui y croient, euh, c'est-à-dire qui croient euh, à la formation à laquelle euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, effectué. Et il y a des Kébambaï dans cette justice, ces gens-là, ces juges-là qui avaient refusé euh, l'arbitraire. Donc, c'est pourquoi il y a toujours un brin d'espoir. Alors, euh, pour l'autre, il n'y a pas d'espoir parce que Euh, euh, tout le processus a été biaisé, tout le processus a été bâclé depuis le début. Donc, il y a les deux côtés. En tant que bon musulman, je me dis qu'il y a toujours l'espoir, Mais de l'autre côté, quand on voit ce qui s'est passé, ben, il n'y a aucun espoir. Il a été condamné avant d'aller au procès. Et ça, c'est injuste pour notre démocratie. Notre démocratie ne mérite pas cela. Donc il faut que nous tous, nous les Sénégalais, que nous soyons pour rétablir euh, notre, la marche de notre démocratie. Pour wane suñu soutien ci Khalifa Sall mais wane aussi suñu suñu suñu suñu suñu jaaxle wane aussi ne tey nanguwuñu injustice ñi fi ñëw ñu bari kenn kenn indiwu leen jël seen ay oto ñëwal seen bopp kon nag loolu pour wane ne non à l'injustice li fi xew waratu fi xewaat ci réew mi parce que dépassé woon nañ fii kon nag ñi fi ñëw mooy soutenir Khalifa Sall wax ne am na un ñu ngi ci combat bi ñun ñëpp di ànd ak yow nga nekk fi nekkoo fi ñu ngi fi tey tamit le 7 mars ñu ngi fii taxaw dëgër am am force qu'il faut pour taxaw parce yàlla moom nga féetoo moom moo am solo te féetoo nañu ak yàlla ñi féetoo nag àdduna foo ne ñoom ñoo moom lépp loolu day jeex te te bés boobu nag bu ko kenn fàtte parce que loo def sa waay rek ak ah, ëllëg xaaral am pire que ça kon nag am njaboot ak yooyu danga ko war a mais sunu démocratie fu mu toll woon ci Sénégal mérité wul lii donc ñi fi ñëw ñëpp dañoo ñëw pour indi ñëw waaye pour am seen solidarité seen cofeel si Khalifa Ababacar Sall